bi moom mooy 20 partants war a daw distance li nga xamante ne si moom mooy 2200 m waaye ndeysaan numéro numéro 19 moo nekk noonu mooy maga neex bu Amar Bao Junior le fils de Pantagriel Pantagriel peintre célèbre ndeysaan Babacar Mara ngi noonu le caméraman de tous les temps waaye xàcc bi ñu wan moom mooy numéro 20 Baye Bara Dieng mu mel ni def si course de rentrée kii gëj naa ñëw ndeysaan baaba Babacar Maar Baye Baara Jenn mu mel ni doomu Kelfu la mais Garouza lañ ko defal nekkul doomu Garouza ki doomu Kelfu la pal tel la bis bis set giri sa rafet kii moo bokk ak nga xamante ni ah way numéro 18 nekk noonu nekk nga xamante ni mooy Tarnawa doomu king of si soxla Moustapha Assem moo ko moom ngelamu la rafet na trop mu mel ni Baye Bastura la ilaha illallah Babacar Maar Nenala la lo loo ma won rek baxul borom dekk bi la ilaha illallah jëlal Babacar Mar li pas cameraman parce que yaa ci bir podok bi mu melni ni 16 bi mom moy eut Demba sek mbay eut bi nak mbay jen mbay moko mom koyor, Fall moko yor rak la very good taawu 3 mois xati la mom waye nee la bo jant ba langé da fay meuna daw te nag dafa tang jër dañ koy bayyi xel bu waawoy ah numéro 11 bi moo nekk noonu mooy ki nga xamante ne si mooy sant yàlla bu cee Diop doomu ak tey loo la waaw ah, mu mel ni am na fas wu leen di wan noonu ab xàcc la gars yi ñu ngi taxaw woo ko di xool di waat mooy numéro 1 Fatima c'est le fils de Soleil de Minuit femelle 3 ans la dafa def départ volontaire Soleil de Minuit John Quart Sada Joel na zone danseur Babacar Mar numéro 5 bi dugg si na Damel Amary Ngoone Sobel Aara de Damel Damel Amary Ngoone Sobel nag moom Babacar Mbagnick Fall boo ko moom c'est le fils de soleil de minuit John Quart Sada Joel no zone danseur favori bi ñëw na de giri ko indi sol tisetu bleu blanc tisetu écrit réuni ñu naan ko ki nga xamante ni mooy Elisio gaay de Honor and Breeze ije sonor Ken Mar Kalamun Zedan ki ci ginnaawam mooy numéro 6 nekk Mbaye Babacar Babacar Sadikh moo nekk nii Babacar Mar kii sa trondo la jàkkeer dootu la am na ñaari fas yu nekkaat ci ginnaam benn xaaj ci numéro 10 moom mooy 10A doomu Lorenz ak la Grande Royale kii benn rob la moog yaayam yaayam nii la meloon moom it nii la mel jekk na lool macha allah laay laay la la 10 moo nekk noonu kenn mës a lu mel nii Babacar Mar Babacar Mar. lee Babacar Maar xoolal beneen xàcc bi xàcc bi moom tamit numéro 1 ko defal numéro 7 c'est numéro 7 Ramadan 5 Ramadan 5 moom doomu Soleil de Minuit la Ramadan 5 Malick Ahmed Diop moo ko moom John Quat Sada Zuel Nozon danseur écrit mu mel ni kel ci def mu nek lo xamante lu ama am solo la wante Babacar Mar élection mo nek nonu Girimo moo ko yor neena naa la Girimo mi rawna Grand Prix solta joke la woon Girimo mi entraîneur la rawna Grand Prix Salta Girimo mi nek chef d'écurie raw Grand Prix solta kon traîné na raw war na raw nek chef de d'écurie raw kon félicitation Girimo raw na 2000 2000 2001 ci biri mo Nguy écurie Ndefane Abdou Salam Gueye moom Girimo waaye numéro 13 bi moo nekk noonu Babacar Mar mu mel ni Vedani la Vedani nag Honor and Bliss moo ko jur Moustapha Assem moo ko moom Ije Sonor Ken Mar kala mun sedan wuu Babacar Mar weeru koor na laa ilaha illallah kenn ma sa lu mel nii laa <laughs> ilaha illallah oh la la oh là là fi mu toll nii Las Palmas freiné na waaye day dem moom foo jaar mu dem numéro 3 ba nekk noonu nekk man Mansour Fall numéro 17 baa ngi noonu di ñëw moom mooy gaawaan moom di dimanche passé amoon na deuxième ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. moom nag rawaan mbay moo moom doomu soleil de minuit la moom tamit soleil de minuit John Coates John Coates Sada Joel Sada Joel no zone danseur ñer ketil ñer ko waaw waaw gaawaan moo nekk noonu mu mel ni jàkkeeru mbongu la Babacar Mar numéro 15 baa ngi di dugg nekk tudd Taabaan mu nekk loo xam ne lu ma am solo la numéro 4 baa ngi noonu nekk dadi nekk mu pos tilo si di ndaw moo ko moom transitaire bu mag bi dégg ngeen li nga xamante ne alaaji Mara Mbaye wax na ko la jeune griot waaye jockey boobu mu mel ni waa guyaari lay waral bàyyi laay kese la nee naa la kooku papam entraîneur la rakk ji sooke la waaye mu mel ni koor gi da koo jàpp Babacar maa xoolal ba laa di ni doxee waaye léegi mu jeex mu mel ni 3 heures 4 heures jot na Babacar Mar mu ngi noonu di jël sooke yi waaye tey nag nee nañ journée à non à non la kon toujours dans nos cœurs repose éternel de vos âmes ñu leen di ñaanal yàlla xaare leen àjjana communauté nationale de gestion des courses hippiques ñoo def loolu noonu mu nekk loo xamante ne si lu ama am solo la numéro 17 baa ngi noonu nekk nga xamante ne si moom mooy gaawaan bu rawaan mbay soleil de minuit wi jon quoi sada joel no zone danseur groupe 3 bi 20 parta lanu Babacar Mar tey foo sànni mbàcc day toj mu nekk loo xam lu ama am solo la Matar Noble Matar de noblesse Matar Noble nag mu mel ni nuur la indi Nour mii nag mal de trois ans la kii doomu Betty Bawa la wante la garf mooy baayam c'est par Vettori je pense bien kii doomu Béti Baawo la yaayam nag Belfi moo nekkoon yaayam Belfi noonu mbokku baayu Faydu Demondoor mbokku baayu Wili Demondoor Machiavelliel mbokku baayu Salma maître Moussa Mbacké Machiavelliel Mister Prospector kii nag la gaafu mooy baayam wante Béti Baawo yaayam rew na grand prix chef de l'État mu nekk loo xamante ne si lu ama am solo la mu mel ni nag kooku doomu Kéba Dieye animateur la xale bi nga xamante si moo xew si jamono Mamad Dieye séeri Amina grand laa ilaha illallah Mamad Dieye ngi nii le grand Zoké mu ngi écrit Sidi Ndaw Mamad Dieye mi moo war beti ba waroo grand prix numéro 10 la laal tey mu mel ni mooy Messi Messi gisoon naa ko ci course yi ci Fallou Diop bi mu war du ma tey gisaat naa ko Fallou Dieye eh, tey Mamar moo ko takk waaye kii mu mel ni numéro 3 bi Mansour Fall la moom doomu parati la mag fi Dubai wi Dubai Millennium Zegin ze Gold mbokk tonto Basiru bu Omar Bawa Junior laay laay la ala acoo noonu di dugu kooku nag rakku bàyyi laay la Alsaan Seck mbiimi Babacar Mar Yamar Gaye ngi nii sa ndey mu ngi noonu di jël Yamar Gaye Yamar Gaye moo ngi noonu mu mel ni mooy meilleur jockey parce que première yi mu amagum kenn amagu ko mu nekk écrit réuni kii raw na ci élection kii raw na si ki nga xamante ne si mooy Lamtoro raw na si ki nga xamante ne si moom mooy façon doon xamante ne mooy Moulay raw si ki nga xamante ne si mooy Prince Albouri oh, Yamar Gaye moo nekk noonu ànd ki nga xamante ne si beneen joke boobu moom mu ngi kasa kasaago lay daa mel ni zone benn Babacar Mar xaw ma lu mu doon waaye zone doré la xaw ma zone or. ak Blanc laal boobu vert Blanc boo kii di cuuc sàngal kam mu nekk loo xamante ni si la ma am solo la